looy seet. waaw rëdd ah ok. taxawal ñu ngi sant ñëpp wax ni dañ fee teew tey ci li nga xam ne aadala ci nguur gi. ndax nguur moom mooy loo xam ne dafay sax nit ñi dañuy romb di dem te nguur gi moom day sax ba faw saa su soppi ku amee rek ku mel ni day am mooy ñi fi newoon yor ay ndombal tànk war nañoo jébbal leng gi ñi nga xam ne ñoo yegg si ci cadre boobu lañ ko defee semaine passée diggante ñaari président de la république yi def ko ci anam bu gën a rafet tey ñu def ko ci diggante ñaari élimaan jëwriñ yi moom euh, monsieur Sidiki Kaba nga xam ne moom moo ne woon premier ministre ba tey ji ak ñu ñi nga xam ne président Bassirou Diomaye Faye daf ñoo tànn pour ñu wutu ko ci di ko gërëm nag di ko jaajëfal ci niñ ñu dalalee tey moom ak ñi mu àndal yépp def ko ci anam bu gën a rafet ak ni ñu doxalee passation bi ci document yi nga xam ne defar nañ ko jébbal ñu ko may ñu ñu gis liggéey bi nu mu tëree di ko féliciter tamit moom ci taxawaayam ndax defe naa gën saa gàtt ay a ngi nii mu yor ay ndombal tànk jaar ci département ministériel yu bëree bëri te dégguñu ko fi ci lu liggéey gu rafet ak euh, nekk au service njëriñu réewam di ko ñaanal yàlla continuer di ko xàllal yoon ba fépp fu mu rek mun faa def li mu doon def di ko di félicité am équipe yëpp li ñu wax ci moom it di ko wax ci euh, euh, le ministre secrétaire d'État muy monsieur Seydou Guèye xam ne teewe na passation bi wara yeggali moom it ak ki koy wutu di rafet lu vraiment niñ ko doxalee tey di leen gërëm di leen sant asalaamaaleykum. ah oui. Merci. Voilà, pardon, pardon. S'il vous plaît. On rend les micros, sinon dañuy tomber. On rend les micros, d'accord? Oui. cérémonie d'aujourd'hui est la matérialisation du choix qui a été porté sur notre modeste personne par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour coordonner et impulser l'action du gouvernement. Donc nous sommes venus procéder à la transmission de cette lourde responsabilité entre le Premier ministre sortant, M. Sidiki Kaba, et moi-même. C'est une passation qui s'est passée dans de très bonnes conditions et qui nous permet à partir de cet instant de commencer à exercer la responsabilité qui nous a été confiée. Je remercie M. le ministre donc et toutes ses équipes pour l'accueil, pour la qualité des documents de passation qui ont été élaborés. Je le félicite également pour euh, ces longues années de bons et loyaux services à la tête de l'État, au sommet de l'État en tout cas, et surtout ces longues années de service irréprochable puisqu'il a eu à exercé dans différents départements ministériels. Et je n'ai pas souvenance qu'il ait été cité dans autre chose qu'une bonne application des consignes, des directives, mais également de la déontologie. Nous le félicitons et nous lui souhaitons une bonne continuation, certainement dans d'autres sphères ou dans d'autres activités. Et euh, en profitons pour... Euh, dire que c'est le premier acte qui est posé dans la prise en main de l'État. Le deuxième peut-être, puisque le président de la République a été installé la semaine dernière dans ses fonctions de président de la République. Aujourd'hui, c'est le chef de gouvernement et dans les prochaines heures et les prochains jours, nous nous attellerons à installer l'ensemble du gouvernement pour que, immédiatement après les, les fêtes de Corité, les différents départements ministériels puissent être opérationnels. bu rëy ndax maa ngi ci primature ak le président euh, qui a inspiré le Sénégal parce qu'il a été le choix du attends maa ngi wax euh, en français je vais reprendre en wolof <laughs> bon tey jii maa ngi ci primature ak euh, le Premier ministre Ousmane Sonko ñu def li nga xam ne mooy passation de service def nañ ko dans la sobriété def nañ ko sans folklore ndax lu ci gën a am solo mooy di dañu war a jubli immédiatement ci liggéey bi di ko féliciter ndax président de la république Bassirou Diomaye Faye moo ko tàmm pour mu nekk njiitu gouvernement Sénégal liggéey bu am solo la te xam naa ne dina ko def ni ñu ko ko santé te ñaan lañ ci am mooy di yàlla dimbale ko. assister ko pour mu jël décision dogal yi nga xam ne dina tax Sénégal gën a jëm kanam di féliciter le président Bassirou Diomaye fay ndax askan bi moo ko fal ci ay élection yi nga xam ne élection apaisée la maanaam dañ ko def amul benn coow preuve bi ñëpp ci d'accord ñi nga xam ne ay candidats lañu woon te ñi nga xam ne tamit eh, dañuy participer ci liggéey bi ci élection bi ba ñu am résultat bi dañu war a am mbégte bu rëy pour suñu démocratie ndax dafa wono ne que démocratie bi dafa am ay fondement yu dëgër ci fukki at ak ñeent am nañu ñetti alternance en deux mille deux mille douze deux wane na que démocratie dafa sàq fii wane na tamit que le peuple sénégalais dafa am maturité le bi nga xam ne askan bi nga xam ne mooy fal mooy fol. te def nañ ko le 24 février 24 euh, mars te choix bi ci président Bassirou Diomaye Faye le tombé maa ngi bëgg euh, remercier le président de la République le président Macky Sall mi nga xam ne moom moo tab comme ministre jox ma ay ministère régalien durant période bi nga xam ne maa ngi ci gouvernement bi ba nommé ma comme premier ministre du Sénégal di remercier tamit ñi nga xam ne yàgg na ma jàppale ci liggéey bi sama soxna samay doom samay xarit samay collaborateurs le peuple sénégalais en entier ndax soutenir nañ ma mais ñi nga xam ne tamit ñu ngi ci région de Tambacounda yàgg ma. soutenir ci liggéey bi lu des mooy di ñu ñaan pour les nouvelles autorités premier ministre moo nekk sama wet yàlla yombaloon ko liggéey bi mu def ko ni ko peuple sénégalais bëgg pour ñu gën a dem ci li nga xam ne mooy le développement de notre pays en même temps di ko ñaanal eh, ci liggéey bu mel ni nga am gudd femme ak wér gu yaram. Je voudrais grâce à Dieu et au président de la République Macky Sall, à mes parents, à mes collaborateurs, à tous les Sénégalais, à quelque niveau qu'ils se situent, qui ont pu me soutenir pendant tout le temps où j'ai pu être dans le gouvernement du Sénégal. Je voudrais insister sur cet aspect qui est l'occasion qui m'a été donnée par le président Macky Sall en mon nommant à des postes de responsabilité régalienne et en même temps dans l'attelage gouvernemental au plus haut niveau de cet attelage Premier ministre du Sénégal. Je voudrais également dire que cela m'a permis de servir mon pays et de pouvoir donner la mesure de ce qui peut être à ma disposition et en termes d'expérience. En rencontrant aujourd'hui, dans le cadre d'une passation de service qui est empreinte de sobriété et de solennité, j'ai pu échanger avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Je voudrais pouvoir le féliciter, lui souhaiter plein succès dans l'action qu'il aura à au profit du Sénégal et des attentes nombreuses qui sont là et que Dieu le guide dans ce travail exaltant qu'il aura à faire. Je voudrais aussi féliciter le président de la République qui, aujourd'hui, a la charge de mener les destinées du Sénégal. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été élu dès le premier tour le 24 mars 2024. Nous avons eu à le dire, c'est le choix souverain du de cette démocratie dont la trajectoire dynamique a pu se conclure par trois alternances en 24 ans. C'est une est un motif de fierté pour notre pays, qui, à chaque étape, peut, quelles que soient les circonstances, choisir les dirigeants qu'il veut, à qui il confie les destinées du pays. Et je voudrais pouvoir dire que cela est dû aussi à la solidité de nos institutions, dont le bon fonctionnement a participé à cette élection transparente et apaisée, mais aussi à la qualité de nos hommes politiques qui ont tous félicité donc les élus, particulièrement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, mais également le dynamisme de notre société civile et des différents acteurs qui ont été engagés dans le processus électoral qui a pu se dérouler dans les meilleures conditions et conditions qui ont amené une élection incontestable et incontestée au regard du fait que le résultat a été accepté par tous les acteurs politiques. Sur ce point, je voudrais vous dire qu'au moment de quitter mes fonctions, alors à la tête du gouvernement du Sénégal, mes pensées vont sur toutes les personnes qui m'ont soutenu Et euh, la personne la plus proche, c'est évidemment mon épouse, mes enfants, mais également mes collaborateurs, les populations de Tamba qui ont marqué un soutien indéfectible à mon endroit, mais aussi l'ensemble du peuple sénégalais qui ont permis de mener ce travail-là. Et je dois le dire que je pars avec un sentiment d'avoir fait ma part. Et aujourd'hui, ceux qui ont la responsabilité des destinées de ce pays je demande au Tout-Puissant de les aider, de les guider et de ramener à prendre les décisions qui amèneront le Sénégal sur le chemin de la prospérité, du renforcement de la paix, de la concorde nationale, de l'unité nationale, bref, de tout ce qui fait la force